dégg nga euh, rafet na xalaat yi dañuy dem nag <laughs> ànd ak Farba segon mi nga xamante ne nii ba tey coow li génnul Ousmane Sonko mi nga xam ne daf ko accusé mu ni dafa euh, tuumaal euh, ay ñi nga xamante ne ni ñoo di généraux yi ba Serigne Saliou Guèye doon ko ci artu ñu dem xool yi ko dellusiwaat. ñu gis ko mu attaqué des généraux. non mais gis ngeen fii ñu attaqué de eh, fausse États-Unis gisuñu fi benn waay boo xam dafa jóg di taxaw di attaquer président Biden ngay fekk ñu ko fa fetal ko mu dee. loo ne ma ne. on a vu quelqu'un ku génn ci réseaux sociaux yi. mu attaqué Biden. ñu fetal ko. fetal ah loolu de yow réew gis. Eh, non la Sénégal. ah loolu loolu de yow réew gis. Ah, ah loolu de yow réew États-Unis nga wax de. États-Unis est-ce que tu pays de la démocratie. États-Unis d'Amérique Farba Senghor yow tu n'es pas informé de. bu fi de. parce que boo ne wax na lu dëgg de. dessin animé <laughs> nga ne Farba loolu yow yow yow yow yow ren ren ren ren ah. waaw loolu su loolu su amoon tey Biden dootul toog au pouvoir. wax ma yëgal loolu waay yow. ma yëgal loolu waaw d'accord dama la bëgg wax ne la Ousmane Sonko il a attaqué il a fait un problème d'État dafa naroon détruire État ku nar a détruire État on a détruit ici l'université de Dakar. yow gisoo archive yi. non non amul loolu nga amul. on n'a pas détruit les bibliothèques. li nga wax amul. mais détruire le responsable le responsable de la scolarité moom moo génn il a démenti tout ce que les gens ont dit. mais tout ce qu'on a vu. dama ne li fi nit ñi doon wax naan on a détruit tout ce qu'on a vu. Oh, yow Farba Senghor yow yow nag yow yow moom Farba Senghor il faut faire attention dans un pays normal voilà que si le Sénégal est détruit demain les états seront détruits. kat ma wax loolu. pour la CEDEAO. non Farba Senghor yow moom. yow moom ah, yow moom tu ne vis pas dans ce pays. non yow moom tu ne vis pas dans ce pays. déglu ma rek non non non Farba yow moom da nga fiy toog di inventé rek rek rek rek. inventé rek non non mais non tu ne vis pas dans ce pays. non vraiment tu ne vis pas dans ce pays. boog bi doon bële gaa ngi inventé. non tu ne vis pas dans ce pays. franchement. non non non Farba il ne vit pas dans ce pays. dama ne la cour de la CEDEAO. oui. il a rendu une décision. oui dans laquelle elle dit. que Sénégal que Sénégal a suivi mhm. toutes les procédures de droit dans l'affaire bi bi opposé ak Sonko Sénégal dégg nañ ko mhm. et tout le monde s'attendait au contraire la fa am waxal la fa am. lu wax waxal la fa am c'était par rapport à la dissolution du PASTEF. loolu la woon non non non non loolu mooy décision CEDEAO bi c'était par on a dit loolu la loolu lañ fa bëggoon. mais mais dissolution bi la loolu la la woon. ayca jërëjëf euh, Modou Diouf en tout cas man de joxe na information yoo xamante ni bokk ah peut-être man daf ma rëcc alaaji peut-être yow yëgoon nga loolu. lu muy hmm. wax si euh, li xew ci États-Unis euh, par rapport ak accusation yi nga xamante ne nii wax na su man Sonko daf doon attaqué ay généraux ba nga déggee loolu Farba Ngom yëkkati kàddu yooyu noonu. Farba Senghor Farba Senghor pardon yëkkati kàddu yooyu noonu ban dégg-dégg nga ci. waaw Farba de wax dëgg fa yàlla lii mu wax moom. wax dëgg fa yàlla euh, nekkul loo xam ne lu ma bett la ci Farba. ba <laughs> ah, lu tax. xam nga far ba moom euh, débat groupe WhatsApp lay débat. Hmm. Euh, fi mu toll nii maanaam parce que warta ñeme ñu teg la ci plateau télévision hmm. nga joxe wax yoo xamante ni bii li nga wax dañ koy dindi ci saa si wan la ne li nga wax yëpp amut. te mënoo argumenté lenn bi mu jaaxlee ci Sénégal moo tax mu génn réew mi wutali Amérique daal ne am na ko doon wax ci Joe Biden wax ju ñaaw ñu dóor ko fetal loolu it gars yi ne ko film dessin animé la xam na naa ah. ba ay Mickey lay seetaan xam naa ci la gis Mickey yooyu def ko wala mu nekk affaire caricature mais xam nga li am solo mooy kan mooy Farba Senghor loolu mooy li ëpp solo kii wax nii. nekkoon na fi ministre au euh, mooy kan. Mhm. Farba Senghor mi lu jëm ci wàllu vingt quatre heures journal boobu. moom mii di Farba Senghor. Mhm. ay tuuma daloon na ci kawam ne moom moo ko attaque woon. kon moom bu bëggee taxaw di ñu wax ku violent euh, moom ci jëmmi boppam euh, moom war na fu ñuy waxee ku violent war na moytu parce que ay tuuma dal na ci kaw ñu ne ko yow journal bi yow yaa leen saccagé woon Farba mi tey euh, pour fàtte ni ginnaaw bi nga xamante ni journalu 24 heures boobu affaire Idrissa Seck bi ñu doon sànni fii mooy këram gi ñu sànni woon fii ay neefare rek yooyu gis nga ko moom Farba moom it bokkoon na ca la nga xam ni tuuma yi daloon na ci kaw ñu ne moom mii moo ko doon def moom moo ñëw tey pour jox ñu ay leçon moom Farba Senghor hmm. maanaam tey jii bu ñu am moo tax man ma yërëm APR ah. waa parce que bu ñu demee ba ñii ñoo leen di waxal problème am na ah, parce que li tax APR sosu hmm. ñii dañ cee am cër bu rëy parce que bu dutoon ak ñii président Macky Sall day ànd ak Abdoulaye Wade mais ñii ñooy ñi nga xamante ne bi ñoo tàqale Abdoulaye Wade ak président Macky ba président Macky demal boppam sunu borom miy joxe nguur yëkkati nguur googu teg ko ci loxoy président Macky ñii bu seen pexe juboon président Macky Sall tey du toog fi mu toog wolof daf ne ba ñu démb bu ñu nangoo seeni pexe jubul seen pexe jubut ni ñu àndeek ak président Macky Sall tey keneen bu fi nekkoon noona la ñu koy bawee dem ànd ak maanaam gëmuñu ko man président Macky Sall par exemple ko xam ne dama wax ne ku wéet la parce que ñi ko gëmoon ànd ak moom nekk ak moom nekkatuñoo ak moom hmm. ñi ci ëpp nekkatuñoo moom ñi ko gëmoon dëgg porté woon combat bi nga xam ne moom la doon combattre genn wàll gépp ne ko ñu ko contre dong ñoo sës ci moom rek ñii ngay gis ni ñëpp tey ñu taxaw di wax ñoom ñooy ñu ko contre bul fàtte 2012 euh, guddi la Serigne Mbacké Ndiaye génn. Mhm. joxe ay résultats. loolu mënoon naa réew. fekk dëkk bi yëpp a ngi jubilé. ñëpp ne président Macky Sall gagné na élection yi. ñu bëgg a joxe ay résultat yoo xamante ni bi existé wut bu Ablaye Wade toppoon leen réew mi tàkk te genre ñu mel nii ñooy ñi nga xam ñii réew mi yitteelu leen maanaam seen bopp leen yitteel waaw am réew nag boo ci nekkee hmm. nga ne da bëgg réew mi de ràññee ñi nga xam ne seen boppaleen ñor ak ñi nga xam ne réew mi leen ñor hmm. maanaam pareen saay da nga naan ñii jaruñu sax fi réew mi toll nga leen di teg ci plateau. parce que jàpp naa ne fi réew mi toll nii pareen saay da ngay mbiru buzz écarter yooyu yëpp ki ngay jël di ko teg ci plateau dafa war a nekk koo xam ni. da lay biir ni même bu fekkee ne dafa ànd ak président Macky na ànd ak moom ngëm-ngëm. Mm. na la woon ni kii ku ànd ak moom ci ngëm-ngëm la parce que du ñëpp mën a ànd ñëpp ne sonk la ñu àndal. Mm. nit ñi dañuy ànd ak Amadou Ba nit ñi dañuy ànd ak keneen dañuy ànd ak euh, euh, kii nu mu tuddati Khalifa Sall nit ñi dañuy ànd ak keneen mais nañ ànd ak moom ci gëm li nga xam ni moom lay def jàpp ni lii mooy liy doxal réew mi mais ñoo xamante ni bi seen bopp képp leen ñor ñu mel noonu vraiment war nañ leen di moytul plateau yi rawatina nag ñu ci mel ni kii parce que taxaw ci tele di wax ci loo xamante ni amoo ci benn preuve loolu moom dafa doy waar doy na waar